waaw Dame Ndeye waaw yow fu ñu la fekk yaa ngi wër rek lan la ak naaj bu tàng bi man daal damaa tabax sama kër ba mu àgg waaye bunt yu baax yu wóor moom laa mënta am ci dëkk bi waaw Dame Ndeye xanaa yow da ngaa yëgul lu xew ci dëkk bi lan moo fi xewat Touba Welding Workshop nekk fii nii sa ginnaaw fan fii fii nii di defar bunt yu baax ak palanteer yu baax yu am maanaa yu am qualité te wóolu nga le bu baax a baax doom Ndeye xoolal bu ma la bàyyi sax ngay sonn nañ dama woon waaw bu leen ci kenn nax fanu baax am foofa la ñëpp jëm Touba welding workshop di makkaan moo xam ni original ak quality fii la fekk baax Touba welding workshop lépp luy xeet bunt sling door bogla proof roule door staircase compound gate iron roof single and double door buntu kër bunt saal buntu nekk fenêtre danga bëgg parking car wala foo aj sa tànk gaaw leen seet si waa Touba welding workshop ñi ngi nekk fii ci Mandiaye Koto Silo after di bridge bu dee Serekunda nga jógee boo weesoo petrol station bi moo lay féete ci sa ndeyjoor boo jógee Manjai highway yi ci garage Sukootu xoolal sa càmmoñ jàkkaarloog Touba welding workshop mën ngaa woo Mara Mbow ci 715 4959 715 4959 mbaa nga dem ci seen email adresse marambaw 249 at gmail dot com Touba welding workshop fii la réew mi taamu. yerwago e jabar wange xeƴaɗana e yerwago e jabar wange xeƴaɗana e yerwago e France mi ngi noonu because ambiance mooy bëre te France daf lay jox bu mot te am naa yaakaar ne euh, France gis nañ ko mu bëre ak ak euh, leket lu yaagut gis nañ lu nga xam ne jàng na fa lu bëri te man suma moom juma France laa jox favoris pour war a win combat bi Tapha Tine nga jënd gis naa Tapha Tine waaye benn tey France laa jox favoris ñoom ñaar ka bokk na pare kii pare na kii pare na trop gisaguñ Tapha Tine waaye xam nañ ne kii pare na trop waaw this one you cannot deny us for, for, for, for, for seeing him. So always, every time him and his desk officer there always support us 1 million percent. Dudu said, I'm saying thank you to you. Lamin Sima, once again, thank you 100 percent. Alaji Matal Jaju, Alaji Abulo Bojang, the whole Gambia Wrestling fraternity, the social media, and our own journalists from the Lamba. Thank you all for your support. We cannot thank you all. God is great. together we loo ciy sànni meeyoo ndax soxla nañu stadium soxla nañu bu ñu ko bëggee wax du fi jóge lan nga nuy dig tey ci làmb. waaw ah, ah suñu maa ngi. on am na si wàlla wante loolu la rek ah, ndaw yi ñi ngi yëngatu si lamba bi ba pare ñun yëpp ndaw nañ am na youngest sports minister in the history of Gambia. man tam youngest mayor in the history of Gambia. kon xamna naa nañ jàpp si lamba bi inshallah allah ak ñom champion sounds ñom Ablo Bojang ak président bi cham inshallah allah yu ci di yëngatu rek ñun tam nañ ci nekk. honorable ministre ñu ngi lay ndokkeel démb ci ndam lu rëy li xale yi defati nañu ko lañuy wax. Hmm. ginnaaw bu ne la ndokkeelee yow ñu la fay ndax lamb ju xew yaak lamb la lamb tuddee na la njukkal ñaari yoon. ba am nañ ndam ndam bu neex nga xamné ni moy dorine bi. Ah, ñi ngi ñaan yalla lolu continuer ndax team bi mëna a qualifier dem ah, Ivory Coast 2023 naa ci wàllum bëre comme ni mu ko waxee li ñu yàgg a yëngatu la te dinañ fas yéene continuer di ci liggéey ah, ci ñi nga xam ne ñoo ci nekk champion san promoteur si yëpp dafa melni ne léegi ma leer re waxi mag jëm na kenn waxi mag jëm ndey talé ah. booy bi booy bi dana booy bi dana dem. waaw baax na. grand combat da ngay xool France. Thank you. dafa mel ñu si gën a c a n b a t bi d i g g n t e France ñu ànd ak Bakary bi ñu ànd ak Bakary Yo! Yo! Papa! Papa, didn't

stade bi ñëpp jóg na stade ba ñëpp jóg na waxi ma jëm waxi ma jëm na taale bàkk wan ma lu ne waajaay tey landu léegi tey abi ba soufflé léegi tey ñu yeeyeeku France ndeyjoor France ndeyjoor tafatin càmmooy ko wax yéen ñi seetaan moo ngémbo ngémbo lu yeloo am lu xonq li mu takk bopp bi Tapha Tine moo ngémbo ngémbo leel am lu weex li maa la ko wax héhé at bi baa ngi wax ñaari mbër de lu làmb nangu ak lu làmb bañ waa Télé nu nooyatun waa Banjul nooyatun léegi mu leer Tapha Tine mi ngi noonu France mi ngi noonu Cheikh at bi ba suuf na na Cheikh Adam sa dafa mel at bi ba suuf na na at bi ba suuf na na Sunday 5 June 2022 Independence Stadion France ak Tapha Tine Faras ñaan na Alière ñaan ba pare dem Tapha mi ngi lewatoo teg tànk right Faras teg tànk ci tànk càmmooy Faras mi ngi teg lef Tapha mi ngi teg right combat bi du gaaw ndax ñoom ñaan ñëpp kenn ci dafa teg tànk lef kii teg tànk right yàgg-yàgg Fana ak Tapha Tine lewatoo bi dim na Faras kama mujj fii woon tegal na 10 minutes fii Independence Stadium ñaan seeg champion sound promotion Fana ak Tapha Tine ñu ngi lewaatoo lewaatoo bi diim na Fana ak Tapha Tine bi diim na kan mooy njëkk dem kan mooy njëkk kan mooy njëkk maa la ko wax cey sama jinne cameraman bi di la jaajëfal di waxoon liggéey am na solo Franc Tapha Tine mi ngi looto gër kis ngay dégg waa Tëlëndi ne na tekk waa bana na tekk Franc Tapha Fara ak Tapha Tine waaw waaw aat bi mën a bëre leen aat bi mën a ngeen bëre aat bi mën a ngeen bëre waaye nag am na ku ma wax moo di kasam fu na combat am na ku ma wax mu ne gaa bi Fara la arrangé waaye yéex bi Tapha Tine la arrangé France wàcce na di dox France wàcce na France mi ngi ñëw Tapha Tine mi ngi dugal lapataaka bi ceeti waa France <laughs> ceeti waa ñoom ñaar ñu ngi doxa wet France teg tànk lef Tapha ñoom ñaar ñoom ñu ngi doxa wet wax naa la France combat mujj bi fii woon moo lakkin mu ñàkk ko Tapha Tine moom mu àndoon fii mu am am solo Franc Tapha kenn door a kenn sang gudd li waa door a suba kenn mooy njëkk a door Franc mën na Franc méb waaye gëma ko Franc mu ngi jëm a enchaîné mu ngi jëm a enchaîné combat bi Tapha Tine oh, la ma xew doon na mu daanu doon na mu daanu doon na ko waaw waaw dafa riposte am na lu bari lu mu génnee ci Tapha Tine moo tax bi mu ñëwaatee combat ba yomb. waaw waaw ba tey ma nga jëm ni Sénégal doomu la xam nga merketu am nañu topp si la médecine bam di wax ratatati rek waaye dara waaye may na France xaalis may na France xaalis say waaw ko may xaalis tur la bu góor France lambu Gambie bi lambu walla bu wér julli si yeneen bi ñoo xam ne ma damaa mbër lambu Gambie nañ ma bàyyi xel waaye nag sant yàlla foo fu ma jëm instant bi buñ toogee nañ si waxtaan instant bi mom mënu mo leen fi la jëm tafatine mo moo sama adversaire daan naa ko wan naa ko wan ko ne man duma sama rom lamu du wax lamu da ngay liggey waaw liggéey naa daan naa ko ñaanal defet bi yalla ko jik mom ma dem suba ma dem benen combat yalla ma yalla may ndam ndax sa waaw lamu ji mom wax dëgg yalla contane nañ ci li rek mo mënoon a am jamm am Banjul Banjul li rek mo mënoon am jamm am fim tollu ñun Banjul yëpp da nekkat ben mu jeex tak ndax xamala moy problème bi dafa am lu duggoon sun biir way Banjul yëpp ben lañ comme que dañ doon wuti daaw bi ñu amee problème ñëpp am kenn amul ndam ren bi ñu amee bi ñu amee jàmm ñëpp am ndam nañ toogaat xoolaat toogaay ñun ñëpp Banjul moo ñu ñor. est-ce que Tapha Tine ñëw na fa. dañ koy jox saa kees après wala Malick Niang du génn Banjul de Tapha du mën a génne noonu Banjul. bëgg tili dama ne rus nit muy naa muy daanu ñun. France bañ nangu dama boo waxee nu wax boo defee nu wax boo deful nu wax naa li pexe. nan gëm yàlla tax xam na lii la yàlla dogal affaire bi Fallou Galass la ku bañ ak ku nangu Fallou. nan ko wër sëñ Fallou borom nit de barke Sëriñ Fallou borom nit ci làmb kon tey bu dugg ci làmb a faw mu ànd ak ñu am mbégte tey suñu victoire bi di waajal suñu événement tamit ñun mi samedi le face to face bi ah, diggante Boy Joola ak Boy Niang suñu fa paree dinañ jubali li nga xam ne mooy on the 26 mi événement ba événement ba. yow dëgg si gën a yaatal nag noonu la demee ñu ñëw ànd ak France supporté ko ba yàlla daf mu may ko ndam tey loolu rek mooy mbégte bi quoi waa gis nga noonu la demee. waaw la nga bi neex na am na solo France waneeti na boppam waaye Tapha dafa mel ni ku ragal France si gàttal waaw man loolu laa gis na Tapha Tine moo nekk a cokkaas bi mu dóoree France fayu fayu boobu si boppam Tapha loolu la waaf waaf boobu nag moo ko jural lii yëpp waaye bu neex la France waneeti na boppam. lim doon yaaga wax wala lim doon yaaga wone loolu la woneete rek at di innover Bouga Titi la ngay am li ngay wax li nga xamante ci ni euh, spécial combat bi di nga am li wax. waaw li fa xew is so unfortunate séntu wuñ ko woon a ah, am na nag li ci dégg ne am na benn mbër bi ki nga xamante ne mooy Lion Noir moom la sotti kii naka nga ki nga xamante ne mooy armée man nag personnellement gisuma ko waaye loolu laa dégg ni ñi di wax. waaye lu ci mun a mel Gambia a Association dinañ si del dogal su boobaa ñoo xam daal lan mooy mbir mi si boppam waaye combat bi joxe wuñ ko sa niil dañ ko cancel bu baa waaw. waaw tey fii daan leen yow wanaa Lamine Thiam moo ñu fi mu nekk lu am solo grand combat bi France moo daan ki nga xamante si ni mooy Tapha Tine jële ba amul benn weerante spécial combat bi amut euh, mu dox euh, beneen bi dox na si diggante ki nga xamante si nii mooy Sodaari Seex ak Boy Ndugu booy nu ngi xew moo am ndam ak yéen a ko waaye sottal mu nekk loo xam ne solo di dem ba Italie di bëgg ki nga xamante si ni mooy grand Tafa grand Babacar bëgg naa la Cheikh Cheikh Cheikh bëgg naa la baax baax sama cameraman di la wax ne nag bye bye ah yéen ñu ne te fii lañ dam day waaw yow fu ñu la fekk yaa ngi wër rek lan la ak naaj bu tàng bi man daal damaa tabax sama kër ba mu àgg waaye bunt yu baax yu wóor moom laa mënta am ci dëkk bi waaw dam day xanaa yow da ngaa yëgul li xew ci dëkk bi lan moo fi xewat Touba Welding Workshop nekk fii nii sa ginnaaw fan fii fii nii di defar bunt yu baax ak palanteer yu baax yu am maanaa yu am qualité te wóolu nga le bu baax a baax doom day xoolal ma la bàyyi sax ngay sonn nañ dama Wow bulan chicken ci kenn nax fanu baax am foofa la ñëpp jëm tuba welding workshop di makan moo xam ni original ak quality feel la fekk Tuba welding workshop lépp luy xeet bunt sling door bogla proof rule door staircase compound gate iron roof single and double door buntu kër buntu sal buntu nekk fenêtre bëgg parking car wala foo aj sa set gaaw leen seet si waa welding workshop ñi ngi nekk fii ci Silo after di bridge bu dee Serekunda nga jógee boo weesoo petrol station bi moo lay féete ci sa ndeyjoor boo jógee Manjai highway yi ci garage Sukootu xoolal sa càmmoñ jàkkaarloog Touba welding workshop mën ngaa woo Mara Mbow ci 715 4959 715 4959 mbaa nga dem ci seen email adresse marambow 249 at gmail com Touba welding workshop fii la réew mi taamu.